ndax ñun ay gone lañ rek maanaam li si war mooy jëli maanaam dama koy bàyyi wala du ko topp amaana bu sànkoo lu ko dal yaa ko teg ndax man fii ma nekk nii muy kon cere su ma doon màndee wala ñu jàpp mooy yàlla yàlla bu ko yàlla def ni ma ràbb si ko sa bi sunu waa kër bu dinañ ne fan la ñun Ibrahima Mbour nekkoon ah Wahai sabtana seri sesali mumbah bah Lama dan tahu Bundung bulu dan dundu sinupon Ak samay waju Tela ko gana tahu Ndax tagat na mo si lolu bah Rus na man Ñu may fekk sul may yedde Sam papa dañ ko mësa tim ñun ñëpp magal ma ñom dog ak ñom talak ñëpp diko kan diko ñaanal dog dikoy way ñukoy kan diko ñaanal diko sant ngir ñu def ñu pare moom it bu ñu pare moom it mu tuur xewal ni ma ne sant naa leen ñu ne ko lu tax nga ni sant yaay suma baay mu ne ah li xew muy coono yi àdduna yi fexe ngeen ba bokk ma si ñu ne ko lu tax mu ne daw ma fenn yóbbul sama benn doomu añ te dogal yooyu bu leen daloon ma def ko waaye sant naa yàlla ba loolu fekk ma leen si man it noonu laa sant doogaloo ba ma bàyyi Dakar ba léegi yi xew ñu bokk ma si xëy na sax sama am fulla ak daw lu bon moo tax fi ma toll nii ma toll fi barki si Tuuba waaw ndax sa papa dafa ne moom utin daa mat a tàmm wala dara jaral si àdduna bu ut loo xam ni boo solee yére maam Cheikh boo solee yére bi taxaw seetu jàkkaarloo yére bi mu taaru loolu ñëpp di ko tudd nga xalaat na ko amee yeddaat sa bopp bu bul bul laal loolu waaw te àdduna bii day jeex ndax dongaloo nii mu dundee carrière ku newul na ko mën a xalaat tuddee ko noonu barki si bu laal woon dara lu sell fii mu tëdd kenn du ko fa fekk di ko siyaare ba man maam su ma ñëwee bokk ak moom ndey ak bàyyi damay croiser croiser le bras taxaw ne la su ma naan su ma ñëwee di jéem a taxawee taxaw rek ko ndongoloo daal ñooñu ay ree la leen di def ndax ñoo ma gën a xobe Aline maamam jàng na sasu xasida bi mu ngi foofu ñu denc. Ablaye Niang bàyyi la si moom da daan taxaw jàngal si Ndeflate ba mu leer moom sii di sama nijaay mu ngi foofu mu denc ku dugg si bàmmeelam si armeelam boo rombee sëñ Baara salaamaaleykum nga yow fan lañ denc Ndongo Lo la mbiru yàlla la waaw da doo diw koo laal la moom loolu moom ay reetaan la dogal comme ni mu ko ñu bokk benn leen moom wax na ko ni ko fàllu yàllaa dogal ñu bu man ma nàmp jox ñu bokk maratu faar ak àllaaji mbuñu ñan loolu yàlla moo koy dogal moom it yàllaa dogal ñu bokk eh, ajaa maratu faar ak mbuñu ñan waaye xam nga doomi xol dafa am comme ni ko suñ mag bi daan waxee yéen soppe yi ndongolo yi mën naa ni yéenay mbokk dereetam li dëgg ndax amaana man lii mënoon naa ne si leneen bañ koo sax tal te teewul bokk na de barke Seydina Muhammad su ma ko ñaanlu woon taluma ko bokk na ba pare damaa deful nag sama wareef wala ngeen ñëw toog fii ma romb leen ne si leneen damaa deful sama wareef mais du dindi dara dara fatal ay nit ñu bokk ndax loolu yàllaa ko dogal bokk yàllaa ko sos yéenay bokki boppam yéen yi ngeen xam na jàpp ngeen ni boo leen solee yére te amul ndongoloo sax amoo leen lu leen neex jàpp ngeen ni boo leen yoree téléphone te defoo leen ci ndongoloo déglu amoo leen lu leen neex jàpp ngeen ni boo leen nekkee si internet bi romboo leen vidéo ndongoloo vie bi amoo leen lu leen neex kon yéen bokki bopp ndongoloo barki Seydina Mohamed man sama ambassadeur la du ma ko taay di ko wax ndax ni muy nekkee sama ambassadeur chaque jour yene nga gis leen chaque jour am ñu yalla jox dépense to do andi do ko noonu la mel ci man nekku fi dina ma mark ngir nekk ni ci zaire ma ko daan gis bu ma daan gis bu may joy loolu la joy su mom waye ginnaawam la gëna a mën karama barki sëñ Touba ndax rafle wu ma tilimu mo français wu ma soofu ma te lépp moom laa siy xool te lépp moom moo ko liggéey muy barkeelam nee na liggéeyu Mariétou Fall ndoggaloo fësal na ko bokk bokkul ak ndoggaloo ndeg bàyyi ak si jariñoo man par yenn saa damay romb ñii di jaay buntu fii di si teg soowu ndoggaloo nga xam ne ay abiyaas di jaay tanewul ma dama leen war a romb jënd jàppale leen ñooy jël fàllu abiyaas wala chargeur wala li mu mën dimbalee seen doole bu dee sa kale bu am soowu ndoggaloo ni ma ñoo la ko jox nga jënd ndoggaloo ma ne la lu tax loolu nga ne ma ndoggaloo moo tax bugguma jël alalu jabo may ñafé ngir fi su fukki dërëm bi may am kon koku amna lu mu def ci jeunesse gisoo mohammed ki tijji place fi en face babakar Café dafa do rom ci babakar Café may nan mu yor ay buntu fop di marchand ambulant di tek ay ndoggaloo di ma rom di ma siar di dem ba léegi mu tijji place foofu mais te noonu laa ko waxee won bi ma place bi defal ma benn kele boo xam ne dafa def ndongolo yu bari may ma MP ni ma man de maam Cheikh ndongolo laa déglu ba tax ma mën a tijji palaas xoolal loolu ah, ak sa ndeysaan déggante nañ de ay ñeneen ak ñeneen dama ko wax si të si tëmbër jàmm nga bu dee déggante loolu tax ñu déggante chaque jour bu may woo danaan ma maam Cheikh ak noonu muy waxee ma ne ko waaw jàmbaar bi mu ne ma ndóobaloo yàlmin la ma ne ko luy yàlmin mu ne ma borom dëkk bi mu ne ma ndóobaloo ma ne ko ah, borom dëkk bi kooku daa ñàkk ki ñaan ma ne ko bëgg ko mu ne ma ndóobaloo ma nekk champion teral sama yaay Balla Gaye 2 tamit noonu suñ dee yëkkati seen di ma jox barke sayidina Mohamed mo togg man kërëm li ma dogaloo moo tax ma nekk champion ma am doole lu taxaw sama kanam mu ful gorom ma ne ko am ah, na ma waa ndax moom lay déglu su may entraîné jàpp ne lu ma jàkkarloo maa ko mën te amaana loolu dogaloo musul jàkkarloo la ngay dee way ko wala mu kañ ko wala mu wax ko nangam ak nangam waaye nag li nit lebal boo ko faylu comme wax rek yàlla fayal ko boppam waa di santaat waa groupe bu baax alaaji Cheikh Diagne Naar yow tamit dina si jiital sokkay doggaloo ndax mën naa yaa fi mag te ki mag mooy kilifa yow tamit ngay sunu sunu kilifa di sunu soppe ndax kii ndeysaan koo xam ne am alaaji nga dem nga ba bëy ci laaj siyaare bi Seydina Muhammad boo kontaanee déglu ndongoloo moo lay dégloo loolu leneen la kon kooku ay caaxaan dox ko jur wax dëgg fa yàlla ndox moom mi ngay gis dem na ba màkka taxaw def vidéo naan maa ngi ñaanal Ndongo Lo nangam ak yooyu koo xam ne naa dem màkka maa war a tal sa bopp sa xel nekkul si kenn ku dul Ndongo mu sëñ Fall ngir bëgg ko bëgg loolu daa rëy te day ñëw ba kër ga Touba foofu ëtt boobu nga xam ne Ndongo Lo amul woon lu sut foofu lu wax ji metti metti ak lu bari bari Ndongo Lo amul woon su ëttu baayam boobu ak ajaam reetu yaayam boobu nga xam ni comme ni ma wax dégg benn émission rek ñu ne ma laaj ma kan nga daan gis Ndongo Lo xar kanamam mun naa yi mu bëgg wala yaayam reetu faal ma ne ko bis bu dawalee oto ba ñëw ba Tuubaa fëgg sama yaay muy yow muy yow ba ñu kontante ñoom ñaar si lay gis kenn ku si ne sa xar kanam boobu mës a gis Garnier bëgg ma xam ni kii kon digganteem ak yaayam leneen la parce que Seydina Mohamed waaw man loolu kenn nettaliwuma ko ba muy indi sama yaay lan ba ni mu ko yéewee ni ko sama yaay tiimee ni mu ko ñaanalee sama papa ni mu ko xoolee yëngal bopp bi da ngay xam ni kii am na lu ko tal lu dootul dañ ba mukk si diggante ñaari waajur yu jur seen doom ba fekk sa yaay si anam bi mu tëdd gore loolu di mu ñoon sa waajur wu góor utiwul dara sama yaay jaamale du faal soxna su gore soosu tëdd fi mu tëdd nga ñëw yee ko wàccal ko boo xam ne maanaam ak mat laa boo xam mu fas yéene naflaay sama yaay yaay ji ni ko mu sukk si boomu yaay comme ni mu ni ko jëriñ li waxee léegi ni mooy sëriñam mooy léppam sama yaay bu tuumee ndongo di tiim bopp bi taxaw tiim ko bi muy ñaanal ndongo rankoo ñi mu ngi dal si bopp ndongo li may bokkam moom ndey ak bàyyi dama ne kii lu ma reetu fal jur raw na barke Seydina Muhammad ndax loolu leneen la quoi loolu yàllaa koy dogal nit defal na yaam ay milliards mu wàcc ko fa wat ko ginnaaw sam xool ko sam da doon tiim ndongo di ko xas te da yëkkati koppar jox ko de bu bari suku si oomam nii du gu xool ko sam papa di ko xas ndax sam papa da tagon di ko xas di ko xas di ko xas ba ma mer man ngir li ma bokk ak moom ndey bàyyi te bëggu ma woon ku ko gën donc di ko ñaanal mu ñaanal ko mu juk dem sam papa yëngal bopp man nga ki nga wax lu xas ko ba wax lu la neex ba pare ba mu dem nga yëngal sa bopp ni ma billaay moom laay defaral te limu koy liggéeyal bu sottee nga xamni mom lay laay ni ma ni ma ni ma kii kenn jëmm la maanaam moo doonul doomu alaaji ma ñu boo xam ne amul melo ndongo li may wax rek dañ naan ma royal ndongolo si melokaanam ni meloon keneen la man maam Cheikh waaw nit ku nekk ni la yàlla dëggee kooku jikkoom li ma reetu faal juróom alaaji ma ñu amu si barke Seydina Mohamed amul ku si mel moom te du du ko am ndax ndongolo yaa koy tooñ mu xuloog yow jooy mu tooñ ba xuloog yow jooy ba pare di loolu leneen la loolu kooku yàlla moo bindee moo ko bindee noonu barke Seydina Mohamed maa ngi fàttaliku jour bu mu jógee états ñëw sol benn ensemble blouson ak fii ni mu tàggee ak ni ko fàllu ñemee ak ay Timberland da koo simmi tëdd rek fàllu sol ko génn lu kenn ñemewul def ndongolo ndongolo yeewu di laajte loolu ñu ne ko fàllaw ko sol mu ne jarul ngeen koy wëri ndax léegi mu indi ko ñu ne ko lu tax mu ne climat États-Unis du climat te nii may jël vol bi démb dafa seddoon ma sol ko waat Sénégal te noonu la demee far daa jékki-jékki rek dugg si kër gi di futtee ko di teg tim yi muy simbi teg donc lii laa xamoon moom bu ko wëri moom day ñëw comprendre noonu mu doon doxi ay raxam maanaam bëgg leen bëggee ko tamit ay soppeem kon kooku keneen la te bis bii bis buñ koy fàttaliku la daa laaj loolu ñu koy leeral da koo mate ay soppeem xam ko ndax man li may nekk nekk taw daa am lu ma dund ak moom loo xam ne du ko fàtte ba ba may dee parce que Seydina Muhammad ñun ndongo xaru tabax si bi ñu njëkk tabax see mu jënd ko si alalam bi koy indi sunuwa waa kër doon kerget nelaw kër gépp mu ñëw tijji bunt bi naan ko si kër gi yeew bu mu si kiri bi maa yeew comme que man sunu kër maa fa doon mujjee tëdd di njëkk a jug loolu laal bunt bi rek damay jug dah sampa papa mag la woon bi ma nee bëre jug si kiri bi ma tega ne sàcc la ma ni ko yow looy def fii mu ne ma noppi mënu ma samar ndax man bi ma sam papa di jëlee fii boobu damaa nekk gone bàyyi leen fi ñoom ak sama yaay dem Touba def fa at ak sama ñu ñu changé si diggante bi màgg si diggante bi bu ma ñëwee ma ne ko yaay ndongaloo mu ne ma waaw ma ne ko léegi nag mu ne ma xar bii laa ñëwoon sama papa waaye xam naa ni su su ak ni sama papa tàngee bu ko fekk bu ko bu bu bu teewee woon loolu mën nañu ko génn la sa xaalis biti ndax sa papa moom dafa tàng da ngay indi say teraanga bu boole la mu indi sa mu ne ma ne ko doo toog doo fanaan fii tabax seef mu ne déedéet ndeysaan génnaat noonu bunt kër gi delloo bunt bi dem ma sama yaram taw ngir ñu bokk ma génn topp ko ba trente bi ma ne ko sëñ bi fii heure bii lëndëm na guddi na de mu ne ma waaw demal rek sam papa yow comme que ma ne sam yàlla dafa dogaloon ñu ñu seq ay waxtaan ak ay jotaay ma ne ko ah am na sa fi ñëw de mu ne ma sam na la xar xool xar bi def noonu daan def yëngal bopp bi ma kii ba ma noonu si moom rek. moo tax ba koy ñaanal mu ne ko li ndongo di wax mbayre dafa am mbayree am mu ne ko mbayre ndong mu ne ko ndongoloo mbayre mën naa bañ a jàpp ku ne waaye bu sa mbayree ñëpp mooy lii nit di génn ñàkkam li ko def sa ñaan mosoo ko way mosoo ko defal dara loolu mooy jagleel dëgg barke Serigne Saliou Mbacke nit jël sa alal def ko si yow pare boole kook ay jooy loolu mooy cagleen dëgg di ndimbalal waajur loolu du tàyyi di ko wax waaye ndax ñun ndongoloo moo ni fay si am si amit doy ndax damay génn dugg taxi wala dara daje nit nar ko jox man ma def naa ko addi ngir ndongoloo ah may fay ko barke Serigne Saliou Mbacké kon koko El Hadj Cheikh Diagne di liggéey bi rëy lol waaw chairman chairman Diouf mo ngi ne di dogu a mom mom moom maanaam maam lépp li ko lal moom moy doole ji ndax mom manam bu fi nekkon tamit ñu bëgg def li ñu bëgg def fii ci code bi ak suñu nawle yi ñu ñu dëkkal bokkal koñ bi ñu am na mu démé mëna démé nenen nah, waaw ñun ñepp la neex. ñu bëgg ko yit waaw xam sa ndongo loolu bari bari waaw man te ñàkk tey moom damaa bëgg suñ daam maam lu mës sa xam sa ndongo loolu wala ñu dégg ko bi dégg ko tey ndax taarix dafa am solo léegi nag Ibrahima Mbacke mii waaw nan ko jox mii dafa saa yi ba kanam mu continué waat waxtaan. waaw moom mi sax daa war a wax ci ndogu loolu ndax tey moom ca ba ni tàngal social bëgg a sax caaf fa la ko fekk.